fi. waaw Pape le sel la le waaw comme euh, tey dañu bëgg ñëw ci consommation wu xorom. parce que wax nañ fi graisse yi wax fi suukar bi Pape dañu bëgg ñëw ci xorom parce que tamit euh, am na solo ci quand même si suñu lekk. Mhm. ba pare mën na causer ay dangers yu bëri su fekkee ne respecté tëwu xorom bi nga xamante moom la yaram di laaj quotidiennement donc ñu ciy ànd ak les beurre Sofia nga xamante ñoom safuñu xorom benn yoon dañ leen enrichir en produits laitiers mhm. ba pare c'est riche en vitamine A E nee la suñ ko suñ ko toggawulee rek def nañ ko si mburu bi ndekkee ko comme suñu pain beurre yi nga xamante moom la ñuy yaa rien de tel nga diw ci beurre Sofia parce que gënee li ci nekk yëpp ngay am mhm. donc comme ni ma ko ni ma ko waxee euh, Euh, études yi ñu def yëpp ci monde bi xam nañ ne moom mooy causer la plupart des maladies cardiovasculaires yi nga xamante ni moom la nit ñi di di di jooy di ñaxtu te lu ci ëpp mooy mortel la maanaam ci ci dee lay mujj. donc loolu nag li koy indi mooy consommation xorom parce xorom dafa am sodium bu ci nekk maanaam sodium sodium bi nekk ci xorom mooy mooy causé maanaam néfaste yooy nga xamante ni moom la suñu yaram di di di jooy di jooy saa su nekk mhm. consommation bi ñuy wax nag mooy consommation excessive maanaam consomation bu ëpp lu ëpp tuuru déjà lu ëpp tuuru wala foox na ko waaw tout excès est euh, nuisible voilà excès baaxul waaw nga ndekkee xorom mhm. ñii di lekk pain spaghetti fee gis naa leen sa yoon nekku ci añee xorom <laughs> réere xorom sa yoon nekku <laughs> donc loolu yëpp Pape euh, il faut savoir crois que ci ñam yi ñuy togg dafa am xorom. Mhm. am na ñoo xamante ne bu ñuy lekk dañuy jël xorom ci seen table di ko dolli ci ci ñam. donc donc bu ëppee c'est pas bon pour la santé. bu ëppee c'est pas bon parce que boo dépassé plus de 7 6 jàpp 8 grammes de sel par jour. mën na la andil ay conséquences. Ah. doo ko gisagum léegi nag. parce que dafay nekk waaw dafay nekk yoo xamante ne day nalaw sa yaram. day dajaloo donc bis bu explosé rek mooy daf lay gaañ. Ah. donc solution bi mooy suñuy faral di togg parce que lu si lu ñuy togg mooy ñànk tàng bu ñuy ñànk tàng dañ koy xorom. parce que parce que moi j'ai vu. yoo xamante ne leen di wax warul na ay mburu yu amul yu amul xorom am na ay salades yoo xamante ni on n'y met pas de. ñu demee ba imposer leen régime mooy. li xorom bi di def seen yaram. d'accord maanaam gaañ na leen ba pare ah. mais ñun su fekkee dañu bëgg préserver suñu bopp waruñu mën a bàyyi xorom parce que bàyyi xorom itam c'est pas recommandé waaw ah. maanaam bàyyi ko complètement c'est pas recommandé mais di calculer parce que mburu bi nga gis pap bi ñu koy defar dafa am xorom ah. mburu bi dafa am xorom il faut pas ñu fàtte ko donc après nga jël sa xorom def ko si donc loolu tamit yaa ngi causé sa bopp ay euh, maanaam ay kii yu bëri fu xorom mën a nëbbatu maanaam si ñun si li ñuy faral di jënd ci commerce bi lu ci mel ni fromage lu ci mel ni charcuterie charcuterie mburu wax naa ko léegi plat yi nga xam ne dañ koy cuisiner dañ koy togg ba pare il faut nit ñi di ci bàyyi xol bàyyi xel que ni xorom bi ci nekk dañuy jël yeneen additif nëbb ko soo koy lekk da foog ni euh, saful xorom y a du sel dedans waaw ah. euh, bi mooy bu saf suukar bi rek ah. alors que am na ay produits yu bëri yoo xamante ne saful sucre saful suukar a du maa ngi doog a comprendre donc man li may déployer surtout mooy par rapport au bébé ah. parce que bébé bu juddoo du lekk xorom papa

paccal di ko di ko di ko jox ah. man yooyu daf may daf may naqari parce que ah. soo ko bëggee appli appliqué dañ naan la da nga bëgg yëfu tubaab wala da nga bëgg na mais mhm. santé il faut savoir que su feebar bi xasee ba manifesté wu rek mooy yegg nga ci cas critique donc il faut tamit comment choisir les aliments mhm. sans sans se priver su fekkee da nga war a ndékki nga xamante ne da jën jënd mbur bu am xorom au lieu nga ciy def ay omelette et autres nga jël sa confiture nga def ko ci paak wala nga jël sa beurre beurre boo xam ne sagul xorom bu mel ni beurre Sofia nga diw ko si donc loolu tamit il faut nit ñi di ci bàyyi xel uh-huh. en général di limiter tamit li xale yi di lekk xale yi bëgg nañu chips pap bëgg nañu ay ñam yi saf xorom moo tax tout le temps dafa am ay campagne yoo xam ne dañuy jàll ci yeneen chaînes yi nga xamante dañ ko faral di seetaan euh. ne mangez pas ni trop gras ni trop salé pas trop salé xam nga loolu soo ko dugalee ci xale boo xamante ni il a trois ans mu koy seetaan uh-huh. dina ci bàyyi xel ah, ah, ah. mais fii bu ñuy sensibiliser tout le temps dañuy gis ni mag yi duñu ci dem duñ xale yi waaw aarña bi ci bi ci war donc na nit ñi xam ne xorom ni mu baaxee suñu yaram noonu la ñu mën a andalee ay gàllankoor voilà donc loolu defe c'est très clair al alfi tojol nga ma ko kontaan naa ci ni nga ma ko tojolee daal daf ma ko tojol tojol na leen yéen tamit euh, euh, xorom njëriñam euh, bien fait ak li mu mën a indi ci ay gàllankoor